politique desuwaat tey ñuy dalal honorable député Cheikh Abdou euh, Mbacké Bara Dolly jiite bokk gis-gis ca département euh, bu euh, Mbacké di candidat également waaye laata boobu kilifa gi ginnaaw bi la nuyoo gërëm la ci dalal bi ñu dalal bëggoon xam sa jàngat ci tolluwaayu réew mi ci lu waral nga jàpp ni xëy na moo tax ñu bëgg indiwaat poste bii di premier ministre ak ci local yu ñu jëm sa jàng dëggantaan ci mbir mi. waaw maa ngi lay fay Cissé di am mbégte baax ci dalal la pour wax ak askan wi lépp loo xamante ne daf ñu soxal soxal réew mi ñu laaj ñu suñu ñu wax li nga xam moom lañ ci xam. Hmm. fi nga tàmbalee si question nag da di question ba am solo ku ne xam na ne 2019 Macky Sall dafa waxoon ne dafay dindi poste premier ministre hmm. li ko waraloon nee na dafa am ay lenteur yoo xam dafa am mu bëgg maanaam fast track xam na ne dossier yeex na mu bëgg a gaawal ndax benn mandat moo ko fa dese te mandat bi de cinq la war na fi ma def lu raw li fi defoon si si juróom-ñaari at yi xam na ne bi mu koy dindi ñun ñi nekkoon assemblée nationale waxoon na ni ko lii ngay dindi du lu baax ci réew mi parce que lantir bi ngay wax ne moom la am boo ko dindee day gën a am lantir boobu noonu ba noppi ñaareel bi dafa am loo xamante nii mooy suñu constitution bi ni mu koy caxat caxatee dafa ëpp te loolu ngeen doon ŋàññi ci Ablaye Wade loolu moo waral ma porté woon combat ensemble national wax ni d'accorduñ si tey d'accorduñ si ëllëg du fa amee ba ngeen déggooni si benn bi mooy dañuy xañ ak ak yelleef yi nga xam moom la assemblée nationale amoon ci ay droit yi nga xam amoon na ko ci constitution bi règlement intérieur assemblée nationale te article 97 ak 98 ba 99 lépp bi Macky Sall dindi poste premier ministre daf ko yóbbaale woon mooy léegi assemblée amul sañ-sañu def dindi daane gouvernement. amul sañ-sañ motion de censure motion de censure. assemblée nationale sañu déclaration politique générale pour premier ministre ñëw di ko fi def. assemblée générale amutoon sañ-sañ aussi tamit li nga xamante ni mooy euh, pour que premier ministre bu fekkente ni dafay ñëw assemblée nationale assemblée nationale di am ay questions yoo xamante ni dana ko jagleel. comme ñett yooyu yëpp amutoon ci assemblée te loolu kese lañ mënoon a sukkandiku pour mën a tënk état ni ko kat. lii boo ko defee te népp loo xam population bi moom moo ko bëgg ñun ensemble sax bi nga xam population bi ñoo ñu fal am nañ seen sañu daani gouvernement boobu ñu tegaat benn gouvernement. kon lan la jàpp ne moo tax mu dellusiwaat ci loolu mooy li nga xamante ne moo tax ñu koy xeex. Hmm. li tax na mu dellusiwaat fii lan ko doon wax ñun moom la dem ban xam lañ ko doon wax dëgg la mooy xamoon na ni dafa juum nit nag bu juumee xam ni dafa juum mu tëdd ba guddi nii damaa juum. lam defoon mu rëccu mu rëccuwaat ko rectifier loolu yow mi ko doon wax da da ngaa jum danga man mën loolu sëlee loolu ndax loolu acte grandeur la aussi hmm. ànduma ak moom c'est mais acte la ndax Sénégal yëpp xamoon na ni li muy def baaxul mais daf ko defoon rek parce que moom xam nga Macky dafa dëgër bopp moom bu xasee ba gànq dara moom automatiquement da koy def loolu nag mu defoon deltuwaat na si ginnaaw loolu ñun bu ñuy assemblée dañu ko càmbar bu fekkente ne lépp loo xam moo demoon ci mbirum ak ak yelef bi assemblée nationale amoon delloowaat nañ ko ko delloowaat nañ aussi tamit si constitution bi nga xam dindi woon nañ ko yëpp joxaat nañ daraja ak kattan assemblée suba ñun dañuy woote pour loi bi ndax loolu li ñu gënal ndax premier ministre bu dikkaatee nag dana tax nag mu gën a nag mën a taxaw si jafe askan wi ndax syndicaliste yi ñi ngi wax amul kun waxal ñi ngi gërëm amul kun waxal tey jii may wax a yow lépp bloqué même ministre yi mën ñoo gis Macky Sall parce que Macky Sall ministre bi ministre yi si boppam conseil des ba la ñuy gis Macky Sall du ñu nuyoo moom bu ñëwee dañ leen gurgul leen dugal leen ba pare Macky doog a ñëw jaar si beneen bunt ñoom ñu jóg taxaw bu Macky waxee pare ñoom kenn du jóg dañuy nag ba Macky Sall demaat këram ba pare ñu dool leen génn waat si beneen buntu bi ah oui noonu lay demee foofu ñu nekk duñ jox Macky Sall loxo parce que affaire Covid moo tax Macky du wax ak ñoom lu dul si communication conseil des ministres bu pare tamit kenn amul sañ-sañ du ko dañuy tëj buntu ba Macky dem ba pare ñoom ñu doog leen a génne loolu c'est très grave kon ministre yooyu nag yaakaar naa tey ba woon poste premier ministre bu ñu defee réunion conseil des ministres pare leen fa wax coordination premier ministre moom moo koy def bu ko defee mu mën a wax ak nga xamante ni ñoom la war a. Euh, ni dafa toog ba mu jékki-jékki rek gis ni juum moo tax mu indiwaat ko amul dara politique lu ko laal. si contexte waaw mais nga ñun la ñuy mën a jàpp mooy. loo gis Macky def ko am na politique. ñun xam na Macky ndax ñoo àndoon. xam na ni du def dara ngir yàlla day def quelqu'un politique si am na si mais du mun a xam na ni Abdoulaye Wade mooy baayam PDS tamit mooy baayam parce que ñun suñu grand la woon ci euh, parti bi lépp lu ñu nasoon xamoon na ko. Hmm. lii bokk na si galgal boo xamante ne mi ngi ko bëgg dugal ci opposition bi il faut ñu bàyyi si xel. mooy ndax bu ñu demee ba élection 2022 muy juillet 2022 assemblée nationale jeex. opposition bi erreur bi ñu def ci deux mille vingt deux muy janvier le vingt trois janvier deux mille vingt deux ku ne xam na ne opposition dañuy def erreur bu rëy a rëy rëy. Hmm. boobu nag buñ si génnee ci li ñu doog a xam def na erreur kooku obligation lay doon opposition bi yëpp dajewaat ñu def élection législative ci deux mille vingt deux bi muy mois de juillet suba ba opposition bi yëpp amee li nga xamante ni maanaam mooy majorité te Macky Sall ñëwaat jëlaat sañ-sañ mi nga xamante ne bu ko neexee mën a tas assemblée nationale bu njëkk amoon na benn lim. mooy tant que assemblée nationale amul ñaari at président mënu koo tas est ce que buy dikkaat assemblée nationale ñaari at yooyu la si def est que benn at lay doon est ce que 6 mois lay doon est ce que. voilà loolu lépp loolu leen leeru te loolu ay ndëkk sërëx la la ndax bu opposition bi gagné assemblée mu am bolokaas Macky Sall dana am sañ-sañ ci constitution bi tas assemblée nationale. léegi nag loolu yëpp ndax comme assemblée nationale mën na daane gouvernement Macky Sall day daal di mën a am sañ-sañu tas assemblée nationale léegi nag su boobaa ñun ñi nga xamante ñooy opposition bi a xalaat loolu xool procès bu ñëwee bala ñu ko maanaam càmbar comme ni nga xam noonu lañ ko defee ñoom procédure d'urgence nga déposé nañ ko déjà ci président assemblée nationale ngir ñu war koo càmbar ba nga xam ne daan ko jàllee avant mois de janvier bi procès bi dana jàll ba procès bi jàllee ba pare ñoom pour seen poste premier ministre boobu il faut élection yi le 23 bi jàll bu le 23 bi jàll nag ci la Macky Sall daana gouvernement bi pour wax premier ministre ba pare moom mu samp gouvernement bees gouvernement bi ki koy jiite kooku mooy nekk tête liste Benno Bokk Yaakaar élection législative bu gañee ko bu kooku gañee day dem assemblée nationale remplacer Moustapha Niass Macky Sall bi calcul politique boo xamante ni euh, moom lay def boo xamante ni il faut que moom day bàyyi ndax moom xam xam na ni doon amul sañ-sañu def troisième ko ndax Sénégal fi mu toll ak bi ni euh, xam na ni moom bis ko defee réew mi day tàkk moom xam na loolu sax kon lii yëpp dafay waajal ki a uutu ci loxoy kon opposition bi waaw bokk na si waaw loolu c'est une boo xamante ni mi ngi koy def boo xamante ni ki koy dana ko xalal yoon bi nga xamante ni fi lay mën a jaar 200 Khalifa Sall fii ak 2024 duñ ko amnistier si programme boobu la di bokk Karim Wade du ñëw si réew mi ak ah, tant que élection 2024 yi bokkul loolu si programme Macky Sall la bokk Barthélémy Dias dañ koy condamné avant 2022 ndax recours bi dañuy def condamnation bi appel bi nga xam moom la ñuy def 6 mois yi dañ koy dañ koy condamné te buñ ko condamné 6 mois yooyu noonu dafay ñàkk droit civique ak civilam bu ko dee buñ ko yóbboo cassation ni def Khalifa la ko dañ koy vidé gaa vidé ko même bu gagné maire Dakar dañ koy dindi comme dina dem ba rabaat rek ni ñu def Khalifa Sall comme ni ñu def Khalifa Sall noonu la koy def destitué ko ndax boo jëlee tey constitution bi ci code pénal bi dafay wax ne nit ki bu ñu ko condamné un mois ferme day ñàkk droit civique ak civil même bu ñu condamné trois mois dafay ñàkk droit civique ak civil loolu moo ne ci con ci ci code pénal bi ak code procédure pénale bi moo tax tey lépp lu mu war a man ba Sénégal yi xam ni condamnation Barthélemy Dias boobu du am bu amee même ñoom bu ñu ko falee maire Dakar dañuy perte Barthélémy Dias mi nga xam ne moom la ñu fal maire Dakar. ah loolu moom c'est une procédure boo xamante ni état bi teg na ko pare. bu dee Ousmane Sonko ku ne xam na ni dafa am ñaari dossiers yu ñu ko tegal amagul fit lu dul ñu tàggali ko ak sol ak ñi nga xam ñoom la àndaloon muy aleem yi nga xam sama classe gi ci li ñu bokkoon ak ñeneen ñi nga xam ñëpp ñoo taxoon ba Ousmane Sonko fagaaguñ koon ci mois de mars bi. la ñuy jéem a simp par benn par benn man mënuñu ko am si man mais am na ñeneen ñoo xam dèjà am nañ ko si ñoom ah mooy tàggal na leen Ousmane Sonko wéy comme ñan ah non loolu wax hmm. ndax tey ji fexe nañ ma ñoom ak Ousmane Sonko bokkuñu coalition loolu de saa tàggaloo la pacte de Bignona bi nga xam man bokk naa si ñu ko signé tey bokkuma ak Ousmane coalition mais sama sama amitié ak Ousmane sax su dama koy ferl di parce que sama xarit la ñoo bokk seen génération te suñu génération yemul 2024 dañuy continuer kooku il faut Sénégalais yi xam ko ñoo bokk même combat seen combat démocratie ñoo bokk même combat muy combat boo xam ne nañ la fi Macky a jóge bu mandaam jeexee mu bañ a posé waa troisième mandat bu fekkente ni dafa nar a posé waa ses mandat ñu fekk foofu génn ko pale parce que du sañ-sañam du yoonam combat boobu si laa nekk lu ma jariñ nag na ma ko parce que loolu mooy li nga xamante ni sama ngëm-ngëm la te Sénégal la ñoo tax ma di ko def pas sama intérêt bopp mais intérêt Sénégal la pour ñu respecter aussi suñu constitution ndax mënu ma nekk Assemblée nationale nekk député askan wu tànn ma yóbbu ma foofu ma de commission de loi bi nga xam ñoo war loolu loo xamante ne tamit waaw ñu parce que ñaar dossiers yooyu moom laa lay wax ni c'est la nekk ba tey mm. benn dossier politique bi mooy dossier bii nga xam moom la ko tegal parce que moom bu fekkente ni comme Ziguinchor situation ba fa am nii ku ne xam na ni Ziguinchor Macky Sall du ko gagné mais lam fa investi ay ko sax Fatick parce que dafay bëgg wax ne ni malgré que dëkkuma Ziguinchor mais maa ngi leen di jàppale mais Ziguinchor ak Ziguinchor waa yi xam na ni seen doom duñ ko jënde ak doomu Fatick doomu Macky muy Macky parce que ñoom xam na ni seen yaakaar ki nga xamante ne am nañ ko muy Ousmane Sonko duñu ko sacrifier duñ nangu aussi ku leen ko sacrifier dossier politique boobu ba tey mi ngi ci affaire élection yi mais dossier judiciaire bi nga xamante ni moo tax ñun ñu nommé waat doyen doyen du sis pour mu génne dossier dossier Ousmane Sonko il faut ñu àtte ko avant élection yi ndax loolu seen programme la xaw ma nag lan lañ koy àttee mais c'est sûr que dañ ko àttee ndax programme nañ ko ba pare loolu nag il faut sénégalais bàyyi ko xel tey tamit di xam ni lépp luñ doon xeex pour que maanaam ñu xeex démocratie am si réew mi liberté am si réew mi ñu yemale am ci réew mi bu ñu àggee fenn fi dañ ko jéem a salfaañe pour seen intérêt bopp ndax xam na ni ki nga xamante ni moo fu war a wuru Macky dafa war a nekk koo xamante ni dafa war a aar nguuru Macky Sall gi ci luuma yi nga xam ne defoon nañ ko hmm. dafa war a sàmm li nga xamante ne maanaam mooy fañu Macky Sall ba nga xamante ne succès du mën a àgg si moom ndax ñi nga xamante ñoo nekk si nguuru Macky Sall gi muy yenn directeurs yi ak yenn ministères ak yenn hommes yi nga xamante ne tey ku ne xam na ni tey ji am nañu alal profité si nguuru Macky Sall gi ñoo ñëpp xam na ni bu fi Macky Sall jógee ñu nangu seen alal yooyu tëj leen si kaso bi hmm. oui loolu moom am na ndax opposition bi yëpp génn nan ñi nga xamante ne ñoom la war a yóbbu kër yi boo gisee kër yi ba tey ji may wax a yow ñun nanguwuñu tas ko mooy xam na ni kër yi ëllëg ñun ñooy fal ki nga xam mooy procureur bi topp maanaam waa kër Macky Sall yi ñu ñoo leen di fal ñun opposition bi ah donc yow ci sa njort mooy ni loolu la xam moo tax muy def li muy def yëpp loolu la xam moo tax muy def li muy def pour que jëm fa bàyyi koo xamante ne doona ko mën a sàmm doona ko mën a aar loolu rek la loolu rek euh, euh, léegi ci pacte bi ñuy wax nii ci ñàkk euh, pacte de non violence beeg li Ousmane Sonko di wax ni du ko xaatim ak coow li bëri ceeg yooyu lu ngeen ànd la ci gis-gisam ak taxawaay boobu ne lii yëpp euh, li ko wund mooy def am leneen luñ bëgg ci waaw xam nga man li may siy wax rek mooy man kilifa diine laa comme ni nga xamante ne ñu ko dir si kilifa diine la damay jox gëdd ak cër kilifa diine yi mais dafa am rôle bu waroon suyee te bàyyi ko aussi gis nga ñun li ñu waroon def mooy ginnaaw bi ñu xamante ni suñu yaakaar te la muy sëriñ Mountakha joxe na ndigal ci mois de mars bi nga xamante ne xam na ni ñun bu ñu wéyutoon ndigal réew mi day daanu ñun xam nañu loolu amoon na ay garantie yu wér ko yoo xamante ni am na si bis boo xamante ne bala ñu si woon a àgg avant midi waroon nañoo récupérer nguur gi ñun xam na loolu mais sëriñ Mountakha si boppam wax ñu te ñun ay taalibe lañ mënuñu lii laa bëgg ngeen bàyyi ko ñu arté woon lépp yamal ko suuf pour wéyee ndigalu sëriñ Mountakha te loolu la ñuy continuer di ko wéyee ba léegi ni te suñu diggante sëriñ Mountakha amul su intermédiaire lu ñu sëriñ Mountakha sant loolu la ñuy def moo xam muy lu gën si ñun moo xam gën si ndax moom moo xam li gën si ñun ak li gën si ñun loolu moo tax ñi nga xamante ne dañoo jóg pour porter maanaam ne dañuy def maanaam ay pacte man pour man loolu jëru ko hmm. ndax Macky Sall mi nga xamante ne mooy njiitu réew mi moom lañ war a wax ne ko eh yow li ngay doxal du dëgg du yoon kilifa gi joxoon na ay ndigal benn ni ñu rey quatorze personnes yu ñu rey si mois de mars ba tey amugul enquête war nañu xam ñu leen rey ñan la quatorze personnes yi ñu rey am nañu famille war nañoo indemniser seen famille parce que dañoo dee ci li nga xamante ne mooy manifestation war nañu recevoir ñi nga xamante ne seen famille Macky Sall defu ko loolu lépp bu nit bu ko defee pour que maanaam wan ne Sénégal yi dee faalewu ndax parfois bokkul si ñoom wala bokkuñu APR kooku yaakaar naa ni ñàkk respect ñàkk cër ñàkk jox gëdd kilifa diine yi la kooku foofu lañu waroon tàmbalee mais fekkee automatiquement da nga ñëw rek nga bëgg tàmbalee ci yéen opposition bi jàpp na ni yéen am yéen def violence yéen lañ bëgg ngeen signé ko ba pare ñu doog a dem si mag Sall man loolu d'accord ma si man moo tax man mi di wax a yow signé wu ma ko te du ma ko signé doo ko signé déedéet mooy ne kon euh, li Ousmane ku ñu wax ñu xuri la taxawaay la aussi waaw xam nga man dama du ku ma wokk sax ndax boo mu bëggee wokk man ma mbéj la ah oui te toll nañ foofu nii. ah oui fa la toll ndax fu mu toll day day euh, maanaam fu mu may wax ak yow euh, ay da ay ah fa la toll ah Sénégal fu mu toll nii kenn ku nekk na nga yor sa sécurité bopp responsable pour nga yor ko parce que fi ñu jëm il faut que ñu xam loolu. ndax ñii hmm. Macky Sall moom parewul pour maanaam bàyyi quoi. ndax nee na woon xeex ba dee si nguur moo ko gënal joxe nguur. loolu fan la ko waxee ak kañ. Ah, ba léegi ma ngeeg moom. ah oui c'est mu nee na waaw nee na moom day xeex ba dee rek moom loolu la xam nee na. day xeex ba rek parce que jàpp na ni xam na ni Ablaye Ablaye Wade laa lay jox Ablaye Wade 2012. mën ni ko woon président Ablaye Wade tey boo bàyyee nguur gi sa doom la ñuy njëkk tëj si kaso bi toroxal la mais <laughs> est-ce que dana bàyyi réew bi kon lii yëpp dafay bëgg a ay ñoñom kese Alioune Sall ci ginnaaw. ñoom ñoom ñëpp ah oui kese ah ndax suñu milliards pétrole yi euh, affaire euh, milliards yi ñu dugal 69 milliards dugal ci mbarum ceeb bi te xamagul lu leer affaire 45 milliards yi nga xam dugal nañ ko ci mbirum santé leeragul 35 milliards yu ñu dugaloon euh, Sénélec 25 milliards yi leen joxat encore yooyu yëpp dara leeragu si non mais vraiment réew mi dafa yàqu ko Macky Sall dafa yàq réew mi ndax ñu ko wër amuñu xam-xam te baaxuñu ñoo gën a ci àddina. Hmm? du nit ñu baax kilifa diine yëpp wax nañ Macky Sall sax mi ngi góorgóorlu ak jabaram. mais ñi ko wër ñoo gën a bon ci Sénégal parce que dañuy xeexante ñoom seen biir di xeex ñi nga xamante ni seen maam ba ñuy liggéey sax ñoom gisuñu leen ana seen maam boobu tey ñu encouré maanaam réew mi wër nekk si wetu Macky Sall di ko tàggale ak kilifa diina yi benn sëriñ boo xamante ni sant nga Mbàkke tey bu mën a am passe du mat si réew mi amul lépp moom yàq nañ ko mais euh, da ngay mujj yàgg da am kar sax parce que da nga naan Macky Sall lan la ko waa def ah oui. ah oui li ci xew yëpp inauguration bu yàggul dara benn kilifa bu sant Mbacke bu mën a génn passe du si passe yu bees yi nii te doo affaire wala jigéen woo affaire bi amul passe yëpp nangu nañ ko kilifa diine yoon dañ leen sànni seppi sànni fële. pourtant du loolu mooy discours am barki Demba Ndiaye bi mu doon inauguré euh, hôpital bu mag ba. ak la xam nga maanaam discours Macky Sall ak li muy wax li si suuf bokkul. parce que Macky Sall mën naa wax si kaw ba pare li muy def suuf du bokk li muy wax mii rek am na lu waxante woon. ci kanam ministre bi finance te bi may waxee jëfuñu ko parce que da wax lii nga génn mu waxaa leneen. ay waaw way nangu nañ samay terrain man 2017 ba fi may wax ak yow benn lan ma jot a fay mu rës ñaar ñuy déposé rapport bi nga xamante ne mooy rapport ordination bi assemblée moo wax ko Macky Sall mu woo Abdoulaye Daouda Diallo ni ko fay leen koy terrain depuis at a ngi ma la mu waxaat Abdoulaye xam naa ko. da ngaa mu waxaat ah, ko appliqué kon président amatu si réew luy problème bi dala topp wala dafa bëgg nga liggéey moom wala. xam nga man bu nee ma bëgg liggéey moom du ma liggéey moom man sama ngor man moom a sama man lan la Macky Sall mën a jëriñ koo xamante ne mën nga ko fukki at mu des ñaari bëgg liggéey nga si yenn condition condition man Macky Sall lan la ma jëriñ man Sénégal laa bëgg leen jëriñ mais pas sama jëm bopp parce que aw ma lan lu si moom ndax bi sama maam liggéey ana maamam man du ma topp kenn waaw mais boo ko topp ma ànd ak moom rek ci politique. muy Pape Diop mi ngor moo ñu boole. ak kóllëre gu yàgg mais lu ma seen si moom du lu ma bëgg si moom. parce que li may am man naa ko liggéey sama bopp bu fekkee si àddina la li ma seen tuwaa defal deful leen ko. ah euh, euh, en tout cas de euh, ñenn ci waa Touba jàpp nañ ni président taxawaay bi mu am ci Touba. ñan la seen bopp ñan la. ba ci sax am na ñu bokk ci famille bi comme ñu ko waxee ñoo xam ne dañ koy doole dañ koy kàttanal ku ni Euh, Gaynde Fatma Serigne Abdou Lahad waaw mais xam nga kooku c'est une moo tax ma di ko jàppale mais droition yi mu ko def te ni mu ko jàppalee si politique ba mu lépp lu ñu moom Cheikh Abdou Gaynde Fatma ci politique Macky Sall tax ñu wax ko ko hmm. ndax fu yiw la bokk sama doom bàjjan la maa ngi ko nuyoo passage mais tey bu ko bu ko bu ko waa Touba dee xas di ko ŋàññi li mu ànd ak Sall mais Macky Sall li mu àndal delloo na ko naar bi xoromam tey jii maanaam élection yii nii daf ko toroxal daf ko humilier wan ko ni ko tekkiwuloo dara si dëkk bi ba tax que maanaam mu jël benn waay boo xamante ne kenn xamul ku mu doon mu ñëw samp ko imposé ko si kaw Cheikh Abdou Bali est-ce que loolu yëfi gor la aussi koo xam ne dafa sacrifié boppam waajurum wu jigéen faatu mu ànd ak yow rakku bàyyam faatu mu ànd ak yow rakkam mu mbokk ndey baay bàyyi faatu mu continuer ànd ak yow di la jàppale si élection présidentielle yi tey ji ñu ñëw maanaam élection législative mu ànd ak yow yokkal la say va élection local ñëw mu ne day samp candidat nga taxaw ne ko doo fa samp sa candidat diw laay indi koo xamante doxandéem la fa. Hmm. mais loolu <laughs> waa Touba est-ce que danañ seetaan loolu. loo bëgg wax foofu. moo tax ma ne nit bu la mbéjee da nga koy mbéj ñaar yoon ba pare nga tufle ko teg si. loolu tooñar bi la de. moom mi la mbéj moo njëkk a tooñ. waa Touba nag dañoo war a maanaam fayu ñaari yoon ba pare tufle ko Macky tufle Macky noo koy firee ni ma koy firee mooy. Hmm. dafa humilier ñi doon jàppale si Touba. toroxal waa Touba parce que yéen. yéen ñi nga xamante ne ay ñun ñu yiw ngeen dëkk ngeen si dëkk bi jafe na ne seen maam moom moom dëkk bi man ngeen fi dara am ngeen xam-xam bi yéen a ngi liggéey léegi yéen dama bëgg ngeen toogi fële mënu leen dara si dëkk bi dëkk bi dinaa indi kenn koo xam ne damay war ne la maanaam moom moo fi man dara kooku bu fekkente ne indi na ko ba kooku jëm fi dara bu ban fi dara danaan waa Tuubaa kat la ma leen wax mi ngi nii kon nag bañ loolu am mooy képp ku nekkoon ci APR wala Benno Bokk Yaakaar si Touba il faut nga contrecarrer liste bi Macky Sall teg nga xamante ni ñaar ñam fa teg commune Mbacké ak conseil département dëkkuñu fa ay doxandéem leen fa mu sacrifier ñi nga xamante ñoo fa nekkoon seen maam liggéey si dëkk bi ñu sant Mbacké jàppale woon ko ñooñu si boppam laay waxal ñu sanctionné liste bala nag. mais bu ngeen ko defee ci xaw a juum d'autant plus que dafa mel ak xalif bi ci wàllu list bi ndax biñ koy wax. dama ne neewoon euh, xalif bi li mu. dama juboo rek loolu la ñuy fësal. xalif bi yoonam nekku si liste APR. Ah man moo tax man mii di wax dama def appel voté sanction contre la liste ab bi ab Lahad Ka jiite Touba commune Touba contre aussi tamit liste bi nga xam moom la Matar Diop jiite ci département bi ndax day ñaar liste yoo xam ne bokkuñu. Hmm. bu dee benn liste bi naan liste xalifa bi la. kooku du liste xalifa. Macky sàll moo jël maanaam APR bopp fas bi jël ab Lahad Ka mi nga xam moom la sëñ bi tànn dugal si ay kilifa diine ñaar fukk ak ñeent dugal si seen la des Abdou Lahad tànn ko ci waa kooku liste APR la liste bak euh, du liste xalifa liste xalifa dafa war a weex ñëpp bokk ci yem man mii di wax yow nekk doomu dëkk ba sama maam def fa lu nekk ma mën a apporte Touba lu du jeex hmm. ci mbirum xalaat xam-xam économique jéem a suqal dëkk ba ñu dugal ma ci dugal ci keneen dugal ci keneen mais liste boobu ngay wax tey ji képp koo xam bokk nga opposition doo fa dugg kon moo lay wan du liste xalifa liste xalifa amul opposition amul pouvoir kon loolu da lay wan la rek chaque jour jëfee mooy loolu dañ ko war a xool nu ngi ko jéem a sensé ba nga xam liste ba fay nekk day nekk liste boo xam ne neutre lay nga xam ne c'est une liste spéciale la bokk APR dugg fa ñi bokk bokk gis-gis ñi bokk PDS ñi bokk si yeneen ñu jël leen dugal leen foofu noonu sëñ bi tànn ki nga xam mooy ne si kaw nag ñëpp nañu mën a. aase léegi ginnaaw loolu wéy na tànn nañu ndax di nga am chance ci local yi ñu jël. waaw ah, am benn chance pour kan mooy am chance. yow di nga am chance ah, mais man damay gagné Touba. ay ah oui ah euh, damay am naa si ñaanu sëñ bi am naa si maanaam bëgg population bi changement war na fa am te APR du gagné Touba jamais de la vie tamay dund man non non non non non. ci local yi ñu jëm. local yi ñu jëm APR day daanu 2022 APR day daanu 2024 waxi nopp tant que maa ngi dund nekk Touba APR du gagné Touba. foo jaar <laughs> fu ma jaar mooy euh, gëm sëñ liggéey liggéeyal population bi rek nekk seen bëgg-bëgg. population bi jaral ma lu nekk nag hmm. population Touba hmm. jaral ma lu nekk ma sacrifice sama jëm pour population bu Touba. yow yan acte nga posé yoo xam te jàpp ni. waa Touba gis nañ ko lu ëpp la fa président def te li ci mujj wax naa ko léegi mooy hôpital bi nga xamante ni daanaka <laughs> benn la foofu. acte yi ëpp yi ma def mooy jël sama xol jël sama jëm jël sama yaram jël sama ruu jébbal si Ahmad Bamba tamit sax deful loolu. ah taaliba ci kër gi de loolu la wax taal taaliba taax la rek. mu ngi koy wane loolu lay wax non jëfewu ko jëfewu ko ndax lu ko sëñ bi sant mu lànk. ñaareel lan la ko sëñ bi sant lu mu lànk lu ko ma sant rek defu ko. defal lii defal lii defal lii la ko sëñ bi santoon lépp def si dara. affaire lan. ci marché bi nii mois de mars bi waaw mois de mars. li ko sëñ bi santoon ci li nga xamante ne mooy ñi nga xamante moo amoon problème. Hmm. ci affaire dossier Ousmane Sonko beeg yooyu yëpp defu si dara sëñ bi du ko sant lu def lu ko neex lay def beneen bi mooy man bin ma tànnee ma nekk député assemblée nationale. Macky Sall bëgg-bëgg moo nekkoon dindi wormaay Touba muy fay ndox man maa tax ba loolu amul. beneen bi mooy mbënd mii nga xamante ne mooy bi mujj am Touba Macky Sall lam jëloon ay engagement ci dëkk bi defu si dara bi ma génnee sama dernier sort bi mbënn mi am ma génne fukki moto pomp ak ñaar dem jox ko waa Touba ak ay carburant ak ay tiwo def sama déclaration ci suba ga ci lañ indi dig Touba 23 milliards yoo xam ne 3 yi ñëw na si leen wax ñu ngi koy defar 20 yi digg nañ ko pour assainissement defaguñ ko ba fi may wax ak yow. te Touba ñett fan yu màgg dana gën deux cent cinquante quatre milliards francs CFA xaalis boobu fan lay dugg ci nguur gi bu buñ ko delloo woon tey jii si Touba kon ba léegi Touba passé na foofu noonu beneen bi mooy man lépp lu ñu ma def ci Sénégal muy ensemble muy sama alal population Touba ma jot ñoo tax ñu def ma ko ndax défendre gu ma leen défendre ak ànd gu ma ànd ak ñoom mais bu fekkoonte ni tey jii dama ni xiib ni meng ànd ak ñi nga xamante ñooy pouvoir bi. su boobaa man li ma bëgg dina ko am mais li population Touba bëgg duñ ko am il Touba il faut ñu am ko leen di xeexal loolu moo waral duñ ma jënde Macky Sall xalaatuñu maanaam jël Macky di ma ko jënde hmm. parce que dëkku fii dafay jaar jàll la mu defal Touba ci hôpital bi loolu Touba ñoo ko liggéey ci ay hmm. taxes ay impôts yoo xam ne fay ñu ko nguuru Sénégal ñu war a am ko ñu ko ñeneen ñi amee ndax gënuñu un million cinq cent fu ñuy yeewoo war na fa am lu mel noonu te ñu am loolu moo tax ñu delluwaat ko foofu noonu mais du tàngeen ak baaxam la bëgg Touba ñu jàppee ko noonu. ñu jàppee ko noonu. Euh, Pape Diop Ndakaaru dafa mel ni euh, ñi ñuy gën a dégg mooy Diouf Sarr Barthélemy Diaz. <laughs> mais Pape Diop dégguñu ko. mais Pape Diop xam nga cest à maanaam li ma naan la maanaam guy guy daanu da ngay bari bourvi Pape Diop c'est un homme silencieux am travailleur aussi ay restaurant mi ngi fi def na ko fi day wane bilan bu hmm. gagné Dakar ma gagné Touba <laughs> mais 2024 bu nekk président day yomb. ah oui ah taalibe Sëñ réew mi nag ndax murid yi sonn nañ trop. ak ah, ki ko yor de nee na ah, kon dana jàpp Seex Béthio tëj si kaso bi jàpp doomu maam Thierno tëj jàpp doomu si Mourala tëj nangu passeport sëriñ si nangu oto xalif Sénégal di Baye Fall. xanaa bu def taalibe mu jaaxal. Eh, kilifa gi li ñuy jeexale mooy yàgg nga ci langue politique bi lan nga jàpp ni moo ci gën a marqué. loo xam saa na. li ma ci gën a marqué mu jooy li ma ci mu am lum la li ma ci gën a marqué bokk na si bi ma nekkee assemblée nationale heure bu mu tuddee Sëriñ Tuubaa député Macky Sall maanaam meccitu meccitu loolu bokk li ma gën a metti lu mu tuusee ngi noonu sama dama gëm Sëriñ Tuubaa ba nga xamante ni bu may toog sax dama naan Sëriñ Tuubaa mais heure bu mu ko tuddee assemblée rek nga gis maanaam député Macky Sall yi maanaam métti guy métti seen xol yi te xamu ni foofu ma ne Moustapha Niasse di toog. ci assemblée nationale photo Serigne Touba moo fa nekk nga xam Serigne Touba moom réew mi moo tax politique kenn xamul lu mu doon parce que koo xam ne boo tasee moom si mbedd du la ñemee xool boo demee kër bàyyee mu sukk nuyu la jox la addiya tey moo lay saaga ci média yi wala mu lay saaga ci assemblée mais loolu lépp nag grâce à waa Touba gi nga xam ne looy defaan jaral na ma ko. lan nga jàpp ni. bi mu la dalee ci politique wala nga gis ko da am envie génn ci. waaw bokk na si bu ay jigéen taxawee ci assemblée di la saaga parce que ngir Macky Sall da nga xam ni sa maam moo gën seen maam sa baay gën seen baay yow nga gën leen ci jikko ak jëf ak doxalin. ñu di la saaga ngir bëgg-bëggu Macky Sall ak ñeneen ñoo xam ne bokkuñ sax ci ensemble nekk ci wetu Macky Sall nekk ci APR nekk ay xale yu tekkiwul dara amuñu métier amuñu xam-xam liggéeyuñu di la saaga réseaux sociaux yi ak di nga xamante ni maanaam di la wax lu bon te xamul loolu dara loolu bu mu ko dee xool ba si yàgg dama naan man dama war a bàyyi politique continuer la ma nekkoon. ndax man dama daal tukki 90 laa tàmbali tukki Chine Dubaï États-Unis Canada Japon Australie àddina bi maanaam pays yëpp continent yëpp dem naa fi sàkku ji xam-xam wuti xam dinaa mën a am sama koom-koom boo xam dinaa mën a téye sama ngor ak sama dignité ndax pour nga am loo téye sa ngor ak sa dignité da ngay nangu maanaam def yenn yi mooy liggéey tey bu ma si nekkoon continuer ba tey pale pass naa fi mais 300 millions francs CFA 2017 ba 2021 ñàkk naa ko si population bi ci social bi mbënn mi amee maa ci man maa ci njëkk Touba bi mbas mi amee ginnaaw sëñ Muntaxa maay ko ci topp maa jàppale élèves yi Touba maa jàppale waa Alhasar maa yóbbu ndox ci yenn quartier yi maa yóbbu ay courant maa leen dimbali seen mbiru ordonnance ba pare taxu leen sama jëmmi bopp eh, sëñ Tuubaa laa ko joxa ah. yàlla na suñ Tuubaa fay te may ñu ndam. lu ñàkk am na lu la ci neex aussi soo koy xool ci politique. waa li ma ci neex nag mooy li ma liggéey suñ Tuubaa ba sëñ Muntaxa wax ni am naa ngërëmul sëñ Tuubaa loolu neex na ma si politique parce que bu fekkoon dugguma ci woon ba nekk député du ci am raaye député ba jébal ko sëñ Muntaxa mu ne ma am nga ngërëmul sëñ Tuubaa rafetlu na sa taxawaay foo nekk man nga fa nekkal. ak kaddu population Touba bi nga xamante ni un million cinq cent ma fa yeewoo ñoom ñëpp gëm Serigne Touba ma seen kaddu ci Assemblée nationale loolu neex na ma trop te bu mu politique du ma maa ngi ñaan nag waa Touba ñu jox ma conseil département bi li ma wane woon ma wane lu toll noonu wala ko raw 2022 bu ma tànnaatee ma demaat Assemblée nationale ma continuer sama liggéey pour défendre population Touba ba li ñu war a am yëpp ci mi aussi tamit ñu mën a def formation jigéen ñi mën leen dox financement mën a def formation jeunesse bi étudiants yi nga xam ne ñoo nekk maanaam si département bi dem jàngi ñu mën leen a encadré jàpp leen si mbirum njàng ñu am xam ñibbi siwaat pour a servir si yëpp bëgg naa ko sant bi aussi tamit bëgg naa ko bëgg naa fexe ba transport bi nga xamante ne mooy jël élèves yi Touba di leen yóbbu Mbàkke ma def gratuite ba nga xamante ne élèves yi duñ fayati bëgg naa fexe ba nga xamante ne seen parents yi bu ñuy xale yi jàngi déetu lañ jox affaire ndékki département bi moo koy moo ko moo koy jox te yëpp mën naa am incha allah c'est une coopération yi nga xam ne fas ko muy canadien ak saoudien yi nga xam pare nañ pour accompagner si département bi ñu gën a jàppale sëñ Touba sëñ Muntaxa ci liggéey bi nga xam ne koy liggéey Touba jàppale waa marché Ocass jàppale marché ambulant yi jàppale transporteur yi nga xamante ni ñu ngi dem si garab ndax coono bi nga xam ne ñu ngi koy jàppale ñi nga xamante ni mooy baykat yi nga xam ne ngi bëgg jaay seen gerte jàppale euh, ñi nga xam mooy travailleurs yi xam ñi ngi son ba bëgg dee ñu si bari liggéey ba sonn amuñu ko leen fay milliardaires Sëriñ Tuubaa yi nga xamante amoon nañ ko ñëpp ñu ñàkk seen i milliards à cause de Macky Sall ñu fas yéene leen ko delawaat bu ñu jëlee mi yooyu yëpp c'est grand procès suñu procès mooy vision Cheikh Ahmadou Bamba vision Cheikh Ahmadou Bamba mooy suñu procès sa oto bi léegi ça va waaw oto bi ko jëloon pour neen dañ def ay enquête xool hmm. mais ba ma ban ko jëlee ba laa jënd Mercedes bi bi à 80 millions bëri na bal bi mu bàyyi parking ba heure ah ma gisee ku ko may may ko wala ku ma ko jox waaw ah, dama ko wóor dama ndax parce que comme fanaanul si man te xamul lu def si biir hmm. man def ay micro man def leneen leneen xam nga man damaa ko see oto foofu laa ko bàyyi dama ko gaare waaw te oto man man ak Macky Sall ci réew mi <laughs> mu ngi ok député Cheikh Abdou ci seen politique beneen yoon lañ fi dajawaat incha allah gërëm leen sant leen